asalaamaaleykum euh, chers compatriotes maa ngi def message bi pour daral xel yi di remercier ñëpp ñi ma woo kilifa yi kilifa yi nekk Touba kilifa yi nekk Tivaouane yi bokk ci faydu bi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Bignona ñëpp woote nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Louga ku ci ne woonam di jël ay nouvelles may dalal xel yi rek rawatina yéen ñi nga xam ne da ngeen féete ak gëm sa bopp yéen ñi nga xam ne da ngeen bokk teg seen yaakaar ci coalition sàmm sa kàddu ay information jib na tey ji ginnaaw bi police yónnee ay nit ci sumay bërëbu liggéeyukaay ak ci yenn ci sumay kër parce que nekkuma fa woon euh, ku nekk ku tudd adjudant baaxum moo leen jiite ñëw na laajte ma pour jox ma convocation ñëw na fi ñaari yoon il paraît dem nañu seet ma ci yeneen i bërëbu liggéeyukaay il paraît waaye fekkuñu ma fa man Bougane ku ma xam-xam ne dawuma daayuma fu ma waay seet dinga ma fa fekk ñeenti barab lay nekk bu dul samay ñaari kër nekkuma ci suma barabu liggéeyukaay di suma bureau maa ngi nekk cimetière Yoff te ku ne xam na ban heure laa fay dem kon dem di ma seeti d média yàq sa temps la parce que man d média ku ne xam na ne duma fa dem du fa teg suma tànk yaakaar naa ne léegi mu mat ñaari bi ma fa gëjee teg suma tànk ak léegi donc c'est juste pour dire à Ousmane Sonko qui veut utiliser la police et la gendarmerie la justice en général pour régler des problèmes politiques Ousmane Sonko vous manquez de courage man Bougane boo nga xam ne duma kuy daw duma ku ñuy wër man Bougane Gueye heure boo ma soxlaa yónnil say buum bu ñu ñëwee bu ñu ma fi fekkul nañu fi bàyyi convocation heure bu ñu ma bàyyilee convocation dinaa dem wuy ji police dinaa dem wuy ji gendarmerie Ousmane Sonko je suis plus courageux que toi yow ragal nga mbaqat nga man kenn du ma jox convocation may woo ay jeunes naan leen kaay servir leen ma de bouclier je ne ferai jamais ça réew mi dama fi am ay responsabilité te musuma politique dama fi def li ma fi liggéey te musuma am ndombay tànk politique donc Ousmane Sonko quand tu veux éliminer un adversaire politique il faut que tu tarme de courage il faut que tu te salisses les mains sa loxo yooyu Ousmane Sonko bee boo nga xam ne di ko taqal parce que man Bougane boo mu bëggee éliminer non du ci caaxaan nga lépp loo génn wax ko tudd dëgg boo génnee une heure du matin dinaa génn deux heures du matin boo génnee quatre heures dinaa génn cinq heures la preuve bërki démb kaddu yi nga fi wax dene dañu falsifier ay données économique bu Sénégal da nga ko def ma génn ne waxoo dëgg tey jii suñu borom jox na ma raison parce que le nouveau représentant du FMI à Dakar de manière très claire et certes diplomatique wax na ne yow Ousmane Sonko waxuloo dëkk et au vu et au su de tout le monde on peut pas diriger un pays ci manipulation mënoo jiite réew ci fen mënoo jiite réew ci taf yëngal mënoo jiite réew ci ay mensonges c'est pas possible Ousmane Sonko xëy na am nga yéene bëgg nga mais force et de reconnaître que mënuloo ñàkk mën boobu tey jii moom indi sénégalais situation bi ñu nekk rassurez-vous lépp lu mu la jaral ci sa jéem googu pour yàq réew mi man Bougane ak ñi ma àndal waa coalition sàmm sa kàddu taxaw nañu fas yéene nañu jàkkaarloo ak yow yaa ngi jéem lu nekk pour élection législative yi ñu jëm sàmm sa kàddu am ci ay jafe-jafe man Bougane nga song xam nañu ne yaa ngi nekk di song Barthélémy Dias ci beneen fànn mais rassure-toi c'est peine perdue cette coalition va libérer le Sénégal cette intercoalition va libérer les Sénégalais ci trajectoire bu bon bi nga xam ne yow sa cuune yow mi nga xam ne mënuloo te lu yàqu yow yow Ousmane Sonko bir na Sénégalais yi ne six mois mu ngi nii nit ñi ñu ngi ci ay jafe-jafe ku sa dund soppiku yow la sa dund soppiku ak ñi la wër mais les Sénégalais aujourd'hui cherchent le diable pour lui tirer la queue parce que réew mi metti na dund gi gën naa seer courant bi fal gën naa seer tey jii la nit ñi gën a ami jafe-jafe police beeg gendarmerie démb ni ñu ko doon kaase ci ñi fi nekkoon tey jii nga bëgg jël alkaati yi jël buum yi di leen utiliser pour uniquement satisfaire yow li nga bëgg yow Ousmane Sonko loolu du ñu ko nangu on ne l'acceptera pas ni ñu def ba xeexoon ñi fi nekk noonu la ñuy defaat xeex la lu mu la jaral yow Ousmane Sonko pour yàq réew mi rassure-toi jaral nañu ko ñun danañu defar réew mi Ousmane Sonko ce pays les gens sont fatigués aujourd'hui avec le FMI yow Ousmane Sonko ak ñi nga àndal pour diriger réew mi da ngeen d'accord ak FMI pour dindi subvention yi subvention yi bu ngeen ko dindee mooy tekki ne woyofal day yokk mooy tekki ne dund bi day yokk parce que kenn dootul subvention ceeb kenn dootul subvention dëwlin ça veut dire tout simplement ñin ñi ci guttal li ñu jëm waay waay comme mënuloo incha allah le 17 novembre ñun waa gëm sa bopp ànd ak waa coalition sàmm sa kàddu ànd ak intercoalition bi ak opposition bi fu waay mun a féete taxaw nañu pour am majorité à l'Assemblée nationale pour que enfin ñu mën a taxawal gouvernement boo xam ne opposition bu Sénégal ay nit yu am kilifa ay nit yu xam fi ñuy jaar ay nit yu am parcours taxaw ngir sauver Sénégal parce que nag fi ñu toll problème mu sauver Sénégal tey jii réew yi ñu dendal ñu ngi ñuy ree kenn waralu ko lu may yow Ousmane Sonko. réew yi nga xam ne démb dañu wegoon Sénégal tey jii ñu ngi reetaan Sénégal kenn waralu ko lu tax yow la Ousmane Sonko aujourd'hui jafe-jafe yi nekk ci biir askan wi lan moo ko waral kenn rek la yow Ousmane Sonko tey jii wax nga wax a wax a wax ba ñu jox la réew nga delluwaat bëgg fi indiwaat yeneen coow ci ay mbirum falsification ay données économiques wane ne suñu fonctionnaire yi nekk ministère des finances duñu dara xamuñu dara loolu du dëgg tey du dëgg ëllëg jafe-jafe yi nit ñi dund jàppal ni coalition sàmm sa kàddu ak opposition bi taxaw nañu pour dindi ko mais comme yow Ousmane Sonko jàpp nga ne il faut nga éliminer ay adversaires politique jaar ci ay pratiques féodales jaar ci ay pratiques anciennes yoo xam ne nit ñi fàtte woon nañ ko yooyu nga bëgg delloo siwaat ngir indi buumu njaam ci réew mi ngir bëgg falu buur ci réew mi on ne l'acceptera pas man Bougane li ma la waxoon démb moom laa lay wax tey yow xam nga ne man Ousmane Sonko ragaluma la yow Ousmane Sonko xam nga ne ñaar xamul ñett xamul waaye ñaar xam na yow xam nga ne man ragaluma la xam nga ne man gëwuma la faalewuma la donc Ousmane Sonko lépp li ngay nas pour suñu coalition sache que je suis au courant yow Ousmane Sonko heure boo réunion wee la ngay wax ci man mi ngi ci suma téléphone je suis plus informé que toi ay yow xam nga ne bu ma layee ne je suis plus informé que toi xam nga ci dara ci beneen fànn arrête d'envoyer des gens pour ñuy ñëw di waxtaan ak man pour naan ma wuy dëggal bal bi dañu bëgg nga gisante ak moom man Ousmane Sonko man Bougane soxlawu ma la gis je ne veux pas voir parce que jàpp naa ne aujourd'hui yaay pestu Sénégal jàpp naa ne aujourd'hui góomu robaale Sénégal donc dama jàpp ne tey dañ la war a dindi ci Sénégal dañ la war a dindi ci responsabilité yi nga am et loolu encore une fois xar naa suma tànk tubay rassure-toi tu peux utiliser la justice tu peux utiliser la gendarmerie tu peux utiliser la police tu peux me mettre en prison parce que tey sa position mën na la permettre loolu amul problème mais rassure-toi foofu nga nekk dinaa la fa jëlee foofu nga nekk di nga fa jóge et incha allahu rabbi le 17 novembre les sénégalais vont voter massivement pour vous dégager de là où parce que les Sénégalais sont fatigués jërëjëf